waaw début El Hadj Keita nag euh, metti na trop parce que ay sunset set commencé sunset set entrée maa ngi ko doon def entre 1000 francs sunset en face payotte machallah allah yàlla diñu ci yàlla diñu ci suturaal diñu ci may ndam fu ñu woote rek sunu nit yi ñëw fa bañ jógee sën set ci lañ wàcc si ñëw Miami ba ñu paree Miami si lañ wàcc si ñëw bistro ba ñu paree bistro ci lañ pare ñëw Douta sec ba Douta sec sax entre 1000 francs lañ daan def sax mais mujj gi bañ demee Miami affaire bi am ampleur nit yi commencé ñëw ñu ne pourquoi pas ñu def ko 2000 ñu commencé ko def 2000 Miami paré euh ñu def tamit Douta sec jaar Douta sec yalla def fa tamit ba ñu defee foofu plein bañ fa défé guichet fermé fof lañ jëk défé guichet fermé ci lañ songé pench mi nak ci lañ commencé song boîte yu mag jaar nañ pas mal de place yo xamni suñ borom may nañu fandam le 24 décembre nak ñu daan jël date bi musuñu xëyuñu rek dem grand théâtre de dañ daan jël date bi chaque 24 décembre ñu koy génnee ci RICIS bi parce que am nañ ay fans mère am nañ ay fans pa yo xamni ni ñu woon nelaw te ñoom dérangé wu leen woon ñom dañ daan génn sax di 24 décembre di daan toog ci récif bi te dafa daan dafa 4 heures 5 heures et quelque pas mais di def di defaat ba def 2019 bi comme naa album ñaari album génnee son var suñ borom teg ci loxo muy nous pourquoi pas grand théâtre un mois 25 jours là du grand théâtre un mois jours là grand théâtre pour euh, événement bi réussi déjà def nañu caravane Nous avons ay caravane nous nañu billets Nous avons déjà récemment 72 heures de LHK. donc c'est une stratégie il y stratégie une stratégie qui artiste bi ci boppam moo le bopam en main ku jënd plus de 50 billets et l'argent, personne ne mooy déplacé ou dem mieux beaucoup. donc je pense que si on a une stratégie pour événement bi jàll loolu rek nañu mais avec l'appui de la presse parce que tey gis ngeen ni depuis presque 21 jours élage toogul mi ngi ci mi ci télé yi mi ci site yi ci donc pour man ci plan communication loolu doy benen bi ci des moy caravane yi ma len wax parce que tay kuy jaay billet ci façon boobu bëriwul ci artiste yi donc dang koy compter donc El il en fait partie def nako euh benen bi moy li ñu mujjé def moy phase bi nga xamné tay moy phase bi terminal bi moy wo len yeen fas yéene saafonte ak yeen fas yéene wan leen suñu taxaway li ci des nak mom jour ba la parce que ku ne xam ni mbeur buy dem ci lamb du stratégie bi muy bëri

def nañ ci suñu kéem kàttan yaakaar naa ni matale mataleeguñu yëpp mais 70 pour cent yi wala 80 pour cent yi jeex na. nee naa kii si buso ak ñamo àndala ñëpp nee naa leen bës ba grand terre lay fanaan ndax musuma kaa joué non wax naa leen ko wax naa ko laajal biram dañu toog biram ma ne ko père grand terre lay fanaan mu ree ma ne ko waaw parce que musuma ko joué